waaw da ñu ciy may dara. tey dama si ah, da ñu ko jox sëriñ ci gàmm nag sëñ bi xanaa nag doo jóge ci gàmm gën a jëkk ci doo ñu may sëriñ ca. waaw tey moom koppar laa siy maye. ah def gis soxla. waaw def gis nga xam ne ne sallallahu ala muhammad. gars yi bind leen. waaw bind leen. sallallahu ala muhammad. 621. Hmm. 621. waaw. <laughs> xam nga tey boo benn fan nga wala benn jotaay. xam nga boo jëlee 621. 1 plus de trois la lay jox. Hmm. plus 6 mu jox la 9 muy 9 portes yi. 9 fois. muy 9 vingt 621 nga koy def par suba teel dootoo ñàkkati dara. chaque jour boo ko 621. boo ko defee ñu jox la xaalis si suur bi. sallallahu alayhi chaque jour chaque jour rek defal yow. waaw saa waaw julli fajar rek. julli saa booy jullee fajar rek defal. 600 kon sama saar ngeen xam duñ julli fajar nag. ah wala ñooñu taxul ngay wax. waaw ñooñu taxul may wax ab julli day julli. alhamdulilah waaw day julli dooraam day julli. waaw day julli dooraam julli moom mooy lépp. Mm-hmm. jullit moom si la fi ñu koy gën a ràññee mooy ngay julli. waaw mm-hmm. ab jullit day julli. Mm-hmm. waaw tey nii faral di ànd ak njàpp lu boo gisee lu bari li ñàkk julli gi rek moom moo ko waral waaye boo saxoo salaatu ala nabi di sallallahu ala muhammad. dootoo fàttate waxtu julli. 621 ngay werd par jour. 621 eh, par jour. saa yoo jullee ba noppi saa boo jullee ba pare rek. waaw bi am na beneen xeetu ndomba goo yor ci sa taabal ji. bi ma fi naa nit ñi di ko génn di ko roñ lu yaa ko yëkkati ba laalu mooy fay coow coow loo mën a am <laughs> nit ñi di si wax wax ji bari lool defal lu la neex nag ah! waaye bul doof def bàkkaar <laughs> képp ku def loo xam ne ne bàkkaar la wala da nga lekk xaalisu jàmbur en tout cas daal coow lay fay <laughs> lu coow li rëy rëy rëy yow boo ko takkee ñu fàtte coow li kon daal luy mbañam euh, trian daal nga ko jox ah waaw trian léegi nit ñi dañuy def délai fu réew mu ne nag lay dem ah, waaw international waaw Afrique gi moom fenn fu ne wër na fa waaw ndax ñiy dugg si wàllu ñu wax njaaxum muy wàllu coow coow lu moo loo mën am boo ko takkee coow loola fay kon daal gaa yi nañ ko nañ ko wut suñ joxel sa benn numéro boo xam ne gars daan la jot nga xam ni donte mi ngi ci bi afi sax waaye joxeel ko sa làmmiñu xam ne yaa ko joxe waaw sama numéro bi gën a wóor moom mooy 78 waaw 78 100 100 15 66 15 66 ku ci woo jot Cheikh Ibrahima borom sallallahu ala Muhammad <laughs> numéro Tigo bi di 765 16 61. ku la ci woo jot na. waaw waaw waaw mooy WhatsApp bi. mooy WhatsApp bi. sëñ bi am na beneen caat mi nag. boobu moom gisuma góor jël ko fi xam lu waral lool. ki góor du ko laal. yaa ko yëkkati de man de waxuma. jigéen gu si bëgg a téye sa jëkkër. nga xam ah. dootut am wujj eh. lii moom pour pour lool la. képp ku ko takk doo am wujju. buñ la waroon a takkal wujju ndax. non sëñ bi da ngaa war a bàyyi ñoom ñaar ba ñett nag. xam nga lu xam lan moo tax. lan moo tax. bii nii dama ko jox jigéen koo xam ne dafa waroon am wujj. Mhm. ba mu ko takkee danoo fomm. Euh, mariage bi ba léegi nii am sëñ bi ba góor ñi dina mere. dana mere waaye nag. <laughs> man daa la mere. ñoom it am na luy dajji affaire yi boo ñëwee ñoo ñu jox li koy dajji. Ah, léegi defal nga leen am nga boo defal góor ñi. pour buy dajji boobu. waaw waaye bii képp ku ko takk doo am wujj kooku moom maa ko assuré. boo amee wujj boo ñëwee ñu joxal la sa xaalis képp ku ko takk. <laughs> sa jëkkër du gisaat keneen ku dul yow. waaw bi kan laa ko war a wutal sax. kan laa ko war a wutal ci gaa yi.